D'abord, euh, c'est une surprise. Nous, euh, hier, quand le, on avait déclaré que le président devait faire son discours, nous, on s'attendait plutôt à, à, une régularisation des conditions normales de, de la Constitution. Alors, bon, bizarrement, on, nous, on, on s'attendait à ce que le président sorte par la grande porte. Et finalement, la plus petite des portes, il, il est sorti. Euh, vraiment c' est dommage c' est li tax dégg nga Macky Sall ngi reporté vote yi. vous savez. def ma bett vraiment parce que ñun ñëpp dañuy xaar démb bu ñu naan président mu ngi def discours. ñun dañoo yaakaar xëy dafay ñëw xëy na teg ay raay yu rafet pour nekk élection yi déroulé ci conditions yu baax daal mais. mu jékki-jékki mel ni def ñu dóor marto ci diggu bopp bon ñu gis leneen mu woon ñu leneen actuellement président bi ko doon xaar pour mu génn ci buntu bu rëy ñëpp tàcc ko yëkkati ay loxo defal ko bravo ñun wooteel nañ ko deux fois yu leer nañ. ba ni moonu sax ba mu neexee troisième mandat ñun ñëpp dañuy kontaan yëkkat suñu loxo si kaw waaye fii mu mujjee ak Sénégal fii moom neexul moo neexul keneen li tax dégg nga Macky Sall ngi reporté vote yi xam nga li tax man teguma ko toor mais coow li ba da ci am du loolu nar a indi coow ak histoire li tax ñu bëgg a taal réew mi ku ci nekk yaa ngi def ku ci nekk yaa ngi def des menaces recul démocratique la histoire dafa retenir ne moom mooy le premier président bu reporté xaw ma annulé ay élection mënuñu nekk éternellement di dialoguer di dialoguer di jaloge ci lan les teg sont mais lép lu mu bëgg a def mooy rempiler pour continuer waat ay deux ans wala nekk dans la magouille non dafa war a arrêter. li mënoon nekk sax nit ñi mënu ko déglu mooy bu fekkoon ne seeguñu si fii ñu egg si nii mais mënul bàyyi bañ ne suba la campagne mu génn na day wax ne élection yi dañ ko war a reporté li tax affaire waa Karim Wade affaire PDS man Karim ñëpp xam nañ loolu mais ànduma ci loolu mënul nekk. actuellement kii porte drapeau bi benn Ousmane Sonko parce que programme bi nit ñi soxla moom moo ko porté. Macky Sall xam ne ni. moom sonte na lépp adduna bi wax nañ ko moom xamal na boobu parce que fu mu dem moom en personne di inauguré Sonko lañ koy wax. président bi dafa def lu ko neex rek tegu ko fenn daal tegu ko si droit tegu ko fen daal lu ko neex la def affaire jaay doole la quoi. mais ay affaire double nationalité yooyu pour man yooyu dañ leen war jël rek teg leen na leen continuer processus